Monsieur le ministre, l'ambition du gouvernement est de considérer les transports non seulement comme un secteur de création de richesses, mais aussi d'appui aux autres secteurs de production dans le but de favoriser un développement durable. Parce que nous tous, savons que le secteur des transports terrestres est un secteur très important. Par conséquent, La vision qui se dégage logiquement est de faire du système des transports terrestres un système accessible, intégré et durable. En soutien à la transformation structurelle de l'économie, parce que nous tous, nous savons que la transformation structurelle de l'économie est un des trépieds du plan Sénégal émergent. C'est ce qui explique, Monsieur le ministre, d'ailleurs, les investissements publics importants qui sont déployés en faveur de ce secteur et qui vont avoir un effet d'entraînement positif sur l'économie de notre pays. Je rappelle que le secteur des transports apporte déjà une contribution importante à la formation de produits intérieurs bruts. Et le ministre des Finances, lui-même, dans son exposé le premier jour, nous l'a rappelé. Aujourd'hui, l'objectif est de poursuivre ces efforts engagés pour d'abord, dans un premier temps, mettre en place des infrastructures et services de transport terrestre adaptés et intégrés. Et je pense que le président de la République est dans cette logique. Parce qu'il y a le terre, le BRT, nous tous, nous avons vu quand même ce qui se passe avec le BRT, car il y en a, il y a des et tout. Ensuite, créer les conditions optimales de sûreté de mobilité durable et d'équité territoriale et sociale parce que su ñuy wax équité territoriale et sociale il faudrait que mu am benn corrélation entre ça et le votre ministère parce que dafay tax li nga xamante ni moom la ñuy wax intégration ñu mën ko def et loolu je pense que votre secteur joue un rôle important pour ce faire différents projets routiers et autoroutiers sont en cours de réalisation tels que la finalisation et la mise en service du BRT je l'ai dit plus sur Diamniadio et je pense que ça va régler énormément de problèmes sur ce trajet. Le renouvellement du parc automobile Sénégal Dem Dikk et des privés de l'association Financement des Transports Urbains. Et je voudrais féliciter au passage le directeur général de Dakar Dem Dikk parce que fan yële passé maa ngi gis ñuy wax internet bi parce que xam am ñoo xam dañu bëgg internet gis à l'étranger ay bisu Dakar dem dikk ñu ne yaa gis nga dakaar dem dikk bis yi ñu ngi ko loué muy dox biir à l'étranger alors que dafa jóge woon ci foofu pour dem port Hollande pour dem port ñu indi ko ñu gis ko rek filmer ko ça a fait je pense une bonne publicité pour ñu xam ne Sénégal président de la République moom dafa yaakaaroon ne mi ngi yàq port ko mi ngi defar comme ça nit ñi xam ne Sénégal président mi ngi liggéey loolu am na solo moo tax internet bi des fois mu yàq waaye des fois aussi am lu muy defar loolu jàpp naa ne bokk na ci li muy defar l'amélioration maintenant de la mobilité des personnes et des biens. Parallèlement, Monsieur le ministre, grâce au levier d'équité territoriale, à savoir le PUDC, Promoville et Puma, nous avons noté la réalisation de 6 673 km de pistes rurales pour désenclaver les territoires de l'intérieur. Et les pistes rurales sont importantes parce que souvent, ki nga xam ne xamul wala dëkkul ci àll bi di liggéey. mënul génne mënul xam lan mooy importance piste de production parce que piste de production sax lañ ko parce que bu fekkee ne da nga nekk ci àll bi am sa mbay moo xamante ni def nga ko ba pare war ko génne mu dem ci tali bi su fekkee amoo piste de production non seulement mën na fa yàq mën na fa yàgg ba pare li nga xam ne moom la war a indi ci économie du ko am et je pense que loolu les six mille six cent soixante treize li ngeen ci def am solo moo tax promo PUMA ak li nga xam ne mooy PUDC liggéey bi ñuy def c'est visible un peu partout Promoville waxaale ma ko parce que ça a permis à beaucoup de maires ñi nga xamante nii ñooy yàq seen ambulance te mënuñu ko fay ñu mën a am ay tali dans leur euh, localité je peux aussi citer monsieur le ministre énormément de routes au niveau du Fouta dans le dans le Mayo parce que moi j'ai été là-bas et on a vu ce que le président de la République c'est dire que le gouvernement à travers le ministère sous l'impulsion du chef de l'État est en train d'accentuer les efforts pour réduire le déficit en infrastructures routières et ferroviaires. Et je voudrais, Monsieur le ministre, vous féliciter pour ça. Et je voudrais dire et m'arrêter sur les chemins de fer. Tout à l'heure, mon collègue et doyen Lamine Thiam l'a di Au-delà même, sifflet bi ñu daan dégg ci chemin de fer chemin de fer ak raay train dafay indi économie dundal dëkk par exemple autour de la gare bu amee gare train bi war fa ñëw toute une économie dafay développer wu autour kiy jaay ndox kiy jaay caaf ki nga xam ne transport la yor ak képp koo xamante ni da ngay xëy koo xam ne dafay xëy ne maa ngi dem gaar ba kiy jaay tàngal kiy jaay gerte caaf kiy jaay leneen ak leneen loolu c'est économie boo xamante ne nii non seulement ñi nga xam ne dañuy wàcc ci gaar bi dañuy jënd et cet argent là dañ koy injecté waat au niveau de la ville dafay dundal li nga xam ne moom mooy dëkk donc au delà même dégg mbir mi dafa am économie boo xam daf koy dundal je pense que loolu ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Thiès war nañu xam parce que dañu demoon ba chemin de fer train bi dafa bokk suñu dund docteur Ndiaye peut-être du ma bàyyi ma fenn à l'époque balaa ngay añ à Thiès il faut 14 heures 30 parce que dañuy bàyyi train bi 14 heures la yegg si ñu xaar 30 minutes ba xam indiwul gan su 30 minutes eh, kenn ñëwul seet si la ñu doog a yàq añi nit ñi añ pour dire comment loolu la bokkoon ci dund bi nga xamante ni moom la ñuy def donc monsieur pense que loolu war na mën a tax. ñu xam ko et comme il y a aujourd'hui un Thiessois à la tête je pense que ça ça va être beaucoup plus simple en tout cas moi je voudrais vous féliciter féliciter vos collaborateurs parce que aujourd'hui désenclavement bi ñuy wax non seulement am na mais aussi tey jii dëkk bi ñu ngi wax ay embouteillage et autres mais bu fekkoon ne pont wu yaraax amu fi pont bi nekk booru Sénégal 92 bu bees bi amu fi pont yi nga xam ne ñoo nekk ci VDN amul nga del autoroute bi dem euh, golf autoroute yëpp point yooyu bu fi amuloon tey ak rapidité bi nga xamante ni moom lañ ko defaree je pense que tey Dakar kon leneen la ñuy wax donc je pense que il faudrait que ñu xam d'abord reconnaître les efforts qui ont été faits maintenant nag ñu ne affaire bi des na effectivement des kay moo tax souvent parce que amul dara loo xamante nii xëy na sotti parce que am na ñoo xamante ne nii amoon nañ peut-être benn plan A ba Z léegi c'est autant de plans que de personnes aucune œuvre n'est parfaite donc je pense il faut que les gens comprennent que loo gis rek am na loo xamante ne nii vraiment mën nañ ci indi li nga xamante ne mooy objectif